pense que c'est pas seulement au niveau des clubs je pense je pense que c'est en général le football local je pense que qui a besoin de euh, d'une meilleure organisation et je pense que si côté boobu war nañ si def ay jéego yu yu mag je pense que déjà euh, defaraat infrastructure yi si fu ñuy jouer compétition nationale yi et avoir plus d'ambition aussi sur le plan sur le plan africain je pense que tey jii nii euh, suñu wax Sadio Sadio seulement Euh, il a investi ici au niveau du Sénégal dans d'autres domaines yoo xam ne que euh, dafay dimbali doomu doomu doomu Sénégal yi tey jii nii su dee jëlee xaalisam dem di investir dans un club français je que il a ses raisons et dañ ko ko war dañ ko ko war a nangul et soo xoolee que il a une ambition même pas une ambition il est sur le point d'ouvrir une académie et je pense que tey jii nii académie boobu mën na doon un club satellite pour euh, pour pour Bourges goos yu génn si académie yooyu euh, Bruges nekk seen euh, seen euh, le le club le club d'accueil en en France pour faciliter leur intégration et pour ñu gaañ pour ñu imprégner wu sur le mode de vie européen et le et le et le professionnalisme européen. D'accord. pour que pour mu doon je pense que c'est une bonne chose li mu def c'est à saluer et que tey jii nii suñu Moussa Moussa Konaté ça veut dire est prêt à engager encore d'autres joueurs sénégalais. d'autres joueurs sénégalais voilà je pense que c'est une bonne chose il faut saluer cette initiative. Mhm. et lui souhaiter et surtout lui souhaiter bonne chance.